borom bi wërsëgal ko doom joo xam ne ju baax la euh, léegi nag ki ki nga xam ne moom mooy suñu maam Ibrahim mu nekk ak doomam boobu nga xam ne fonk na ko lool bëgg na ko ba doom ji màgg borom bi sant la mu ne falamma balaga maahu saaya bu mu demee ba nga xam ne léegi mun na ànd ak juram di dox bi maanaam léegi moom mun na liggéeyal ay waajuram soxla maanaam ay waajuram soxla nañ ko def leen di jàppale def leen di dimbali bi maanaam dem bu aba nga doon am sa doom yaa doon dem jëndi lii yaa doon dem def lii ak mel noonu léegi yow li li ngay def rek moom mooy yónnee sa doom mu dem moom moo lay taxawal moom moo lay nekkal si ay place yoo xam ne yaa fa doon nekk démb moom moo lay defal loo xam ne démb yaa ko doon def léegi dem nga ba nga xam ne aajowoo nga ko comme ni ngay aajowee aajowee say say gët ak sa ak sa dégg nu ma koy aajowee ndax euh, yitte ak njëriñ bi nga xam ne am na ko ci yow bi maanaam tàmbale ne dina dimbali di la dimbale xelam di la dimbale kattanam di ànd ak yow si ay jikkoom yu rafet bi maanaam soxla nga ko soxla boo xam ne ni nga soxla say gët ak say nopp euh, ak sa dëgg noonu nga ko soxlaawee ndax lu lay dimbali loolu la chaque instant bu day nekk doom joo xam ne dañ kaa bëgg lool dañ kaa fonk lool maanaam sa bëgg ko dafa gën yokku ndaxte tàmbali nga gis njëriñ bi ginnaaw bi nga xamee ne sonn nga ci moom ay at léegi nag yaa ngi tàmbale di noppaleku moom mu war a tàmbale di sonn ci yow mooy ne moom màgg na léegi mel ni ko doon defal démb léegi mun na defal boppam au contraire léegi moo ngi liggéeyal boppam di liggéeyal yow di la dimbali euh, foofu nag nga gis borom bi subhanahu wa taala ak nettoom mu ne fa lamma balaxa maahu saaya ginnaaw bi nga xamee ne dem na ba nga xam ne tollu na ci euh, dimbali euh, maanaam di ànd ak waajuram di def li waajuram di def euh, mu mën li waajuram mën ba sax léegi moom moo app sax kattan far ndaxte waajuram màgget na te moom macha allah ba léegi moo ngi ci ndawam mu ne bi foofu lan moo xew <coughs> mu ne qaala yaa bunayya maanaam moom Ibrahima mu ne yow sama doom inni man mii day ara fil manaami maa ngi gis si euh, maanaam daal si nelaw bi bi maanaam damaa gént anni asbaxuk damaa gént ne maa ngi lay rendi te moom xam na ne papam yenente la su gisee loolu xam na ne yàlla moom moo ko woon nekkul mbir mu seytaane waaye mbir la moo xam ne dafa jóge si borom sant la te yenent yi lu loolu maanaam daal luñ luñ leen sant la mu ne yow sama doom man de gis naa ne ma ngi lay rendi gis naa ne ma ngi lay rendi euh, papa ji nekk koo xam ne xaritu yàlla la su ko borom sante du déngi-déngi du sikki sakka du yox-yoxi léegi nag loo moo tax bu ko gisee rek da kaa jotele doom ji te xam ne ne loolu mënul sotti su fekkee ne kattan kese la doom ji moom moo ko ëpp moom ko ëpp kattan fekkee maanaam euh, doom ji dafa bëgg rëcci mun na kaa rëcci ndaxte moom màgget na te doom ji moo ngi si ndawam moo tax nag mu ne ko ah doom man day gis naa ne maanaam maa ngi lay rendi léegi nag wax ma sa gis-gis fanzur euh, xoolal maza tara la ngay gis subhanallah loolu nekk loo xam ne lu diis la nekk loo xam ne nattu la nga gis ne ndekete xaritu yàlla nit ki nit nekk xaritu yàlla wala waliyu yàlla loolu nekkul looy looy donn nekkul looy nàmp nekkul looy askanoo te bëri na ko xam ne da askano si ku baax te fekk yow baaxoo da ngay askanoo ci waliyu te fekk yow nekkoo wali da ngay askanoo si koo xam ne dafa jege yàlla te fekk jege woo yàlla subhanahu wa taala lan moo tax ndaxte jege yàlla ab liggéey la ñafe la nekkul deret maanaam jege yàlla nekkul deret su fekkete ne jege la deret la woon kon tey amul kenn koo xam ne dafa jege sang bi saa salaam lu ne waa aljanna lay doon lu dul waa aljanna lay doon te bari na ay ñoo xam ne maanaam dañaa wóor sang bi saa salaam ñu jege ko lool waaye taxul ñu bokk ci waa aljanna kon mbir yi nekkul deret nekkul tur nekkul askan nekkul ab dëkk nekkul ñu suul la si wetu diw nekkul diw suul la nekkul diw jullee la waaye mbiri la moom mooy sa jëf mooy sa liggéey mooy sa ñafe mooy topp digle yi mooy bàyyi tere yi mooy jege borom bi subhanahu wa taala si say jëf ak sa jikko ak sa jaamu bi nga koy jaamu ak sa sellal bi nga koy sellal la moom borom bi subhanahu wa taala lii moom moo lay may nga nekk ko jege yàlla nga nekk xaritu yàlla subhanahu wa taala kon nga gis ne lii nettu la boo xam ne bu tar la suñu maam Ibrahim maanaam loolu dal ko si jamono joo xam ne heure boobu la gën a soxla doomam ndaxte moom moo ngi néew doole te doom ji moo ngi am doole maanaam instant bii nii moom moo ngi gaare comme niñ ko waxee si wàllu kattan ak wàllu man-man moom instant bi moo ngi gën a am kattan moom doom ji kon loolu nekkul nettu boo xam ne bu méttee métti la ndaxte yow sama mbokk na am euh, ne masalan doom ji dafa judd rek papa ji gis ko rek ñu ne ko rendi ko na am dina ko métti lool ndaxte liir lu muy tollu si xolu waajuram juram rëy la waaye liir ak loo koy bëgg a bëgg yaa koy liggéeyal yaa koy sonnal mais ki nga xam ne moom léegi daf lay liggéeyal di la sonnal laa chaque année kooku da nga kaa aajowoo ngir ñaari mbir da nga kaa bëgg ngir ñaari mbir moom mooy lan benn sa doom la ñaareel bi njëriñ bi nga xam ne am na euh, euh, amal na la ko loolu moo taxoon nag mu nekk ko natt boo xam ne bu méttee méttee métti la ndaxte kat borom sontal du nangoo bokk euh, du nangoo nga nekk xaritam ba pare nga nekk koo xam ne itam maanaam am na keneen koo xam ne dañ kaa xaw a jégal yàlla subhanahu taala ci wàllu bëgg loolu euh, yeneen yi borom bi mayoo leen ko woon bi maanaam masalan xaritu yàlla yu mag yi mel ni sang bi saa salaam mel ni suñu maam Ibrahim moo tax nga gis ne itam sang bi saa amul beneen doom bu góor bu bu dund bu mag ndaxte. ndaxte xaritu yàlla la am na yoo xam ne maanaam euh, du ñu am chance bi waaye dafay nekk seen nattu boo xam ne dañ koy dund nga xam ne xaritoo bi dafay déggu seen diggante ak seen borom subhanahu wa taala kon suñu maam Ibrahim mu ne doom ji man day gis naa ne ma lay rendi wax ma nag sa gis-gis nga gis fii njëriñu doom ju baax moom bu ko papam waxee loolu euh, lii la tontu qaala mu ne yaa abati yow sama papa ifal defal maa tu'mar luñ la sant defal luñ la sant subhanallah moom waxul sax rendi ma wala muy muy laajaat papam mu ne looy wax ni déedéet waaye dafa wone ifal defal maa tu'mar luñ la sant xam nga su waxoon sax rendi ma na am loolu mooy ne nangu na moy ne jébbalu na waaye defane ne lépp lu lay sant def ko ubbil naa la bunt pare naa ko moo tax nga gis ne euh, borom bi subhaanahu wa taala dafa njëkkoo wax mu ne may naa ko doom joo xam ne ju xaliyam la ju lewet koo xam ne dafa am dafa muñ dafa mën muñ waaye itam dafa nekk koo xam ne ku nangoo dékku la doo ko def loo xam ne daf koy metti te fekk laaloo diineem mu lay mu fayantoo ku ku mun baale la ku mun jéggale la ku woyof la loolu nekkoon loo xam ne euh, yombalal na papam ngir mu taxawee santaan yàlla bi subhaanahu wa taala ndaxte fekkete ne masalan maanaam moom papa ji da bëgg waaye doom ji nanguwul boobaa dafay xaw metti dafay xaw a tar na balaa papam di ko jëkku day fekk ne gaañante gaañante am na wala sax moom su jëkk ko papa ji mu lor papa ji ba nga xam ne papa ji sax du ko mun taxawee wala boog ñuy ñuy dakkante ay weer wala ay at wala ay jamono yu yàgg balaa loolu sotti waaye déedéet suñu maam Ibrahim dafa nekkoon koo xam ne maanaam dafa yar doomam ci lu ci ci mbaax ci nangul yàlla subhanahu wa taala loolu bokk na si li ngay yar sa doom mooy mu nangul yàlla subhanahu wa taala mu xam géddu yàlla ak wàccuwaay yàlla wàccuwaay digle yàlla yi ak teram nga xamal ko kam mooy yàlla subhanahu wa nga fexe ba mu fonk téere yàlla bi subhanahu wa taala ay digleem ak ay teram na fexe ba mu fonk yonent bi Muhammad sallallahu ay digleem ak ay teram loolu nag loolu la suñu maam Ibrahima def si doomam bii di Ismaïl mooy ne dakaa xamal màggaayu yàlla dakaa xamal wàccuwaayu yàlla subhaanahu wa taala moo tax gis nga suñu maam Ibrahim benn da doon ñaan ngir yàlla subhaanahu wa taala may ko doom ju baax ñaareel bi mu tànnal ko yaay ju baax ñetteel bi mu nekkoon ko xam dafay ay njabootam ci lu baax comme moom yemul rek si benn si ñett yooyu nekk di ñaan kese déedéet waaye itam yemul kese si ut euh, wayjur bu baax déedéet waaye dafa boole yépp ñaan bi tànn bi euh, noonu itam euh, yar ko si lu baax am fii ni dinañ leeral ne suñu maam Ismail yaayam nekkul Saara yaayam Hajar la waaye itam mu nekkoon ko xam ko ku baax la ku mën a muñ la ku baax la ku mën a muñ la euh, loolu tënk la rek si dundu suñ maam Hajar ala nabiyina wa alayha salaam wala bokk ñu ne radiallahu anha wa ardaha